alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani wahadani li أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني وأصحابك والشرطة من الشيطان الرجيم rabbi aasibika min hammashaati shayaatiin wa aasibika rabbi an yahduruni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi jaala al anbiya wal awliya xashaa'ina rahmati yaxshimuna rahmatu bayna ibaad barke maam Sharafal asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi audio bi seen mbokkum taalibe Baye Ridial bi kër Sëñ Tuubaa moo ko def mm, tey jii di fanweeri fan ci weeru tubaab di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mm, kori <coughs> muy ab audio boo xam ne ab laajte la ak tontu ak taxaw jàngat rek ci dem gi nga xam ne ku baax ki yàlla na fi yàgg loolu te wér sëñ Muntaxa demoon na ko Ndakaaru doom nemmi ku mbokki taalibe ak liggéey ya te mu mel na ni rafetlu nañu ko lool di ñaan yàlla mu yàgg faa dem waaye nag njàngat yi ñu ciy am mooy en tant jëwrin Euh, ci yoonu murit di jàngat yoon wi ni mu tolloo ni mu ni baaxee nii bu nu sañoon mu gën ci gën gi mooy sëñ Mbàkke yu fay mi nga xam ni mooy jëwriñu waa Ndakaaru te sëñ bi jaarale ñëw gi ci moom euh, ni nu ko déggee mu jëfe ko ni nu gisee mu jëfe ko jàpp nañ ni bu amoon ay conseil ak ñu muy waxtaanal mën na noo jëfe nu bokkul ak noonu ndax jëwriñu Ndakaaru capitalu Sénégal nga jiite murit ya fa nekk ah, bu borom Touba jógee Touba di fa ñëw am na nu ca taalibe yi mën a dugalee seen loxo gis ci seen bopp ba bu ëllëgee boo fa nekkulee yow liggéey bay wéy te du am benn sooxe sooxe donte liggéey sëñ Touba denn wéy te du am sooxe sooxe li ma bëgg a wax mooy ah, jumaa ja taarkaal la ak mbooloo waaye nag man damaa jàpp ni tey bi sëñ bi ñëwee. man bu ma doon makki yow bu sëñ bi ñëwee ni sëñ bi waajee ak naa fa nekk bu sëñ bi tey bu ma doon makki yow bu sëñ bi ñëwee lu gàtt gàtt ñaar fukki nit ak juróom-ñett daanu toog ma taxaw ni sëriñ bi ñaar fukki nit ñi ak juróom-ñett yi kat kenn ku nekk fédération la jiite ci ndakaaru jiite na nangami daayira li ma bëgg a wax mooy dafa waroon a fédéré waa ndakaaru def leen ay fédération def leen daayira nos leen boobu sëñ bi dikkee mu ne ko ndakaaru nangami daayira gi daayira bu nekk nangami fédération la. fédération bu ne nangami fédération ngi fi fédération bu ne nangami daayira la daayira bu nekk diw mi ko jiitee ngi nii fédération bu ne diw ko jiite ndax loolu am na ndakaaru ndakaaru ñaar fukki fédération ak juróom-ñett xañ na fa fédération bu nekk mboolum daayira lay jiite yuy liggéey sëñ Tuubaa nga xam ne daanaka kenn ku ne sax dana mën a aw ci ñooñu toog ci kanamu sëñ bi mënu ko ñii la àndal di liggéeyal sëñ Tuubaa fii ci ndakaaru bu boobaa ñooñee ba sëñ bi ñëw dana fekk fédération yooyu dajale ay yoo xam ne bu matulee un milliard yi dana mat cinq cent millions moom bu boobaa lu nu dajale lu mu bare bare bu ko neexee yëkkati un milliard am boole ca ni ko donge yi nag ñoo la siyaaree lii tey ñaan nga yàgg fi te yër te yàggu nu fee fekk man loolu laa jàppoon bu ko defee donc fédération yooyee daayira bu nekk fédération bu nekk sas sa daayira moo xam un million la moo xam cinq cent mille moo xam deux cent cinquante mille ñu dajale ko ni waa Ndakaaru lii la ñu dajalee di ko siyaaree si sëñ bi. bu nu ko dajee ba pare moom mu door a yëkkati un milliard am ba bu cay teg bu dee am nañu cinq cent millions ñu ne waa Ndakaaru dajale nañu un million cinq un milliard cinq cent dong la ko siyaare bu ko defee dong yëpp daan ci seen bopp ah, def ay kuréel tàmbali liggéey boobee nag fas yéene ci liggéey lépp waaye bu fekkee ni moom dafa dajale benn un milliard am jox ko sëñ bi ni ko maa la ko siyaaree yàlla na nga fi yàgg ñëw yàgg ma fee fekk ma gën koo man léegi yeneen Dakar yi lu mu yàgg yàggit day day kon yoonu murid ni muy doxee mooy ni buñ la jiitalee ci bopp murid yi nga doon seen jëwriñ booy dem da nga yóbbaale murid yi wax mu ñaanal murid yi awle ah kon nga taxaw naa ko sëñ bi ñaanal ma ñaanal waaye ñaanalal murid yi ñoo dajale lii ndax bu boobaa bu murid yi dajalee cinq cent milliards xawma cinq cent million maanaam jënd wàllu million mil milliards yow nga teg ci milliards muy un milliard et demi ñu siyaaree ko sëñ bi it dong yi bu ñu génnee téewul daan ne nun kat juróomi téeméeri million rek la ñu amoon waaye Mbàkke fay ci teg junniy million daana ko wax ci seen lami ñëpp xam ko te bu boobaa da nga am tuyaabay yóbbaale murid yëpp te it da nga am ko joxe un million cinq cent waaye mel yow nga jël benn malet jox ko sëñ bi lii milliard la maa ko siyaaree yàlla nga fi yàgg ñëw yàgg ma fee fekk mais taalibi yi ngi jiital teg la ci seen kanam parce que taalibi yi ñoom ñoo la jiital sëñ bi bu la fi tegee te néexunu taalibi yi bu amee weer ñu jëlee fi kon taalibe yooyee boo leen boo dee dox ci sëñ bi da ngaa war a dox doxin woo xam ne ànd ak ñoom ña gaaw ak ña yéex ñëpp danoo war a maase dox ba la jébbal sëñ bi waa ndax ci turu ndakaaru lañu koy jébbale ak taalibe yi fa nekk di liggéeyal sëñ Touba moo xam ka dëkk Louga ka dëkk Touba wala murid yi xëy ndakaaru te nekk fii Mbàkke nga fekk na fi ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul yëpp lii lañu dajale ci addiya jox la ko siyaaree la ko sëñ baa nga noonee bàyyiwaat ko fi fekk fédéré fédéré nga daayira yi yëpp ba daayira bu nekk am ku ko jiite fédération bu dee am ku ko jiite booy wax ak moom moom ngay waxal mu dem wax ak fédération ak i dayiraam nga nos taalibe yi ci ak buum ñu xam ni ñuy liggéey la sëñ tubaa kenn ku nekk xam fi ngay teg sa tànk gis sa bopp ci ñëw gi sëñ tubaa di ñëw gis sa bopp ci liggéey yi ba boobaa liggéey bi dana dox te dana tegu ci yoon te taalibe yëpp daan fi gis seen bopp ndax sëriñ bi moom bu ñëwee fekk la fi ren dana fi mës a ñëw du la fi fekk kon liggéey bi danga ko waroon a nos nosin meneen sëñ tubaa mu ñëw it bu mu fekkulee mbàkk yi fay moom fekk fi murid yi dox doxin woo xam ne teg nañ leen ci yoon loolu mooy mooy mooy mooy ruuru jëwriñu sëriñ tubaa ci ab gox na lëkkale dongo yépp nu doon wenn fay lu ñuy joxe it ñu joxe ko ci turu dongo yi bu la neexee nag bu sëñ bi demee ba ba Tuubaa nga topp ko fekk ko fa yow jox ko deux cent milliards mais foofu ci Masalik dongo yi jiite la ànd ak yow loo fay jox sëñ bi ci turu waa daayira Ndakaaru nga ko war a joxe parce que sëñ bi waa ndax bu doon yow dong du fa ñëw seet si wu la it taalibe yëpp la seet si ndakaaru la seet kon kenn warul a jël kenn waru ko euh, maanaam bañ a yaatal dafa war a yaa dafa war a yaa beneen bi it leneen lu fa waay def lu mu rëy rëy murit fa def ak sénégalais yi. ndax comme que ñoom président bu fi nekk lu mu fa defit ba mu doon opposition defu ko fa jamono jama ko fay def président la doon kon moom defu ko fa waaye Sénégal yee ko fi def moo xam Ablaye Wade la moo xam Macky la moo xam ku mu mën a doon lu def lu mu rëy rëy ko fa def waaye moom defu ko fa ndax ba mu defee opposition defu ko la la koy xamal mooy ma Ablaye Wade ma ko fa defoon jiitu woon ca tey déggatoo ko mu def fa dara kon la mu fa doon def yëfi murid yi la yëfi Sénégal yi la fa doon def Macky mi heure bu wàccee dootu fa def dara kon li mu fiy def murid yee ko moom kon Euh, jàpp naa ne bu fekkee ne ànd sàmm jukka yi dem nañu ci sëriñ bi ay yoon yoon sëñ bi signé jox leen ñu signé ñu def pétition di def ay kuréel def ay meeting ci dakaar te tegoo fa sa tànk ñëwoon na nañu àndale sàmm sàmm jukka yi te sàmm jukka yi signature sëñ baa nga fa ñaanama nga fa jàppale leen ma nga fa kon tey bu sëñ bi ni woon damay jàppale Macky Sall it na nga seetaane woon ànd jukka yi nga waroon a seetaan waaye waroo poussé sëñ bi wala ngay poussé naan bu sëñ bi nee ñu jàppale Macky Sall bu sëñ bi waxee ñu jàppale daan la jàppale ndax nun sëñ bi la ñu yaakaar déedéet sëñ bi yoon ño koy daje Dakar mosu noo dégg nu kee Mbacke Faye dafa mel daa am parce que sëñ bi wax na fii signature am da sàmm jukke yi ay kilifa lañu ay imam dajaloon ni ñu ngeeg signalu tiiru sëñ bi nan nu jàppale ci ñu xeex góor jigéen mosoo faa teg sa tànk man yaar yoon wax naa ko ni Ndakaaru bu nu fay dajaloo ka fa nekkal sëñ Tuubaa waroon naa ñëw ni maa fi nekkal señ bi ànd ci sàmm jukko yi parce que ay ciment ak béton ay sooroor ñu mu rëy rëy rëy loolu ciment ak béton fer dong la jukko yi ñoo ko jukko yi nii sàmm moo ko ëpp doole jàkka ji bu ñu fay sujjoot téeméeri junni yoon ñaari fukki junni milliards xasida alxuraan bi kenn xamul nu mu toll sëñ bi jàbbante gi muy jàbbante dem ak ñëw yëpp bëgg jukko yi baax dong la kon nu nu sàmm jukko yi mooy përi mooy moo jiitu kon jàppale gi ngay xëcc murid yi pour ñu jàppale ko wala nga bëgg sëñ bi wax ni nanu jàppale Macky Sall xëcc gi ngay xëcc loola am na lu ko jiitu woon te xëccoo ci mënu ngaa xëcc ci ni nanu jàppale sàmm jukka yi nanu jàppale xeex góor jigéen nanu fi xeex wax it Macky Sall doole jafe-jafe yi nga xam ne jullit yaa ngi koy am ci biir Ndakaaru ak murid yi ak nit ñi ni rey yooyu yëpp a nga faa wax waaw wuroo xëcc rek sëñ bi bu waxee ñu jàppale daan la jàppale noonu sëñ bi la ñu yaakaar xëcc xëcc ba bëgg a jaxase sëñ bi ak donga yi wala ngeen a dox diggante sëñ bi ak donga yi wala ngeen bëgg a joxe loo ndigal sax sëñ bi te joxewu ko sëñ bi ma ñaan ndax bu ma ñaane day mel ne damay jeng ñëpp a ci man sëñ bi laa ko booleel loolu kay doy na loo ci xëcc la jarul ñë xëcc nag naan bu sëñ bi waxee ñu jàppale lu jàppale parce que am na ko defee da ngaa bëgg a dox diggante sëñ bi ak donga yi wala nga bëgg a jaxase sëñ beeg donga yi sëñ bi moom waxul ne danaa jàppale kenn danaa la booleeg sëñ Tuubaa mu ko daan boole léegi na ko booleeg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom la ko war ci moom dana ko def waaye leneen luñ fi commentaire nag ba di di indi lu mel ne ay meeting ci biir Masaalik ak li ko wër ak ay ay tàccoo ki ay yooyu mën naa ñàkk ndax sëñ bi moom ñëpp la jaboote nanu bàyyi xel lool bu baax nanu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax bi liggéeyu sëñ la ñun ñi fi nekk ñëpp dañuy dem ba jóge fi mu continuer di wéy fii ko fekkoon fii la ko fi bàyyi kon bu ko kenn daar gaajoo wala nga bëgg koo téye bëgg koo def sa liggéey liggéey bi liggéey sëñ Tuubaa noo fi jóge waaye moom du fi jógee te du jeex mukk kon ñëpp xañ nañ ci man loolu laa jàppoon ñu ngi sant sëñ Muntaxa di ko ñaan mu yàgg fi loolu te barke borom Tuubaa alhamdulillahi alkarim silmilan ala stifadi bi furudin wa sunan سكرته لأن قد ساهني لوتني به نفى ما أنفني